sunanul wudui inda saada shafiiya gannaaw buñ jàngee sunnay njàpp inda assaada almalikiya jàng ko jàng sunnay njàpp inda assaada al ahnaaf ñu ngi ànd ak yéen tey ci sunnay njàpp inda assaada sunay njàpp inda shafiiya yu bari la xam ngeen ne waa kër imam shafii du ñu tàqale diggante sunna ak mandub ak mustahab danañ ñu limal sunna yu baree bari ci sunnay njàpp xam ngeen ne am na ci boroom xam-xam yi ñu lim sunnay sunnay njàpp ba mu xàgg ci juróom-ñaar fukk bi ci njëkk ci sunna yi inda uh, assaada shafiiya mooy listiaada audu billahi min alsheitan irrajim ak lu mel ni jumla joojo bokk na ca tasmiyatu fi awali lwudui te mooy wax bismillah wala bismillahi irrahmani irrahim lu dul yii du doy xilaafan lil axnaaf bokk na ci it aji jàpp ji mu yéene sunnaay njàpp inda tasmiya yéene ji nag bokkul ak yéene yëgati toj ndax yéene yëgati toj ci farata yi la bokk inda shafiiya rahmatullahi alayhim bokk na ci attalafuz bi hadihi niya almasnuna yéene ji nga xam ne dañ ko sunnaal borom baatal ko tudd ko ni nga xamee ne noonu lay baatalee anniya almafruda inda shuruci fi gasli alwajhi bokk na ci raxas ñaari loxo ba ci tikki njara tàmbalee raxas ga fa muy waxee tasmiya ga ak fa muy yéene sunna ga wala sunna ya mooy ci njëlbeen ga rek bokk na ci sunnay njàpp inda shafiiya njëkk a raxas ñaari loxo ba ci tikki njare ya balaa nga gàllax ndiku bokk na ci sorox ndiku gannaaw gàllax ndiku sorox ndiku nag ci ñoom moo xam ñoddi nga ndox ma ak sag noy bam dem ca kaw bakkan ba wala ñoddiwuloo ko dugal ga nga dugal ndox ma ci bakkan rek amee nga ci sunna inda shafiiya rahmatullahi alayhim bokk na ci sunnaay njàpp indahum istiqbaalu alqiblati ida kaana yatawaddau min makanin yumkinuhu fihi istiqbaaluha aji jàpp ji bu fekkee fa muy jàppee mën na jublu qibla mën na faa jubloo qibla jublu qibla sunna la bokk na ci su dee jàppee ci ndab lu ubbeeku mu teg ko ci wetu ndeyjooram bu fekkee ndab li ubbeekuwul mu teg ko ci wetu càmmoñam lu mel ni satala bokk na ci buy jàppit mu ñaan ñaan gi nga xam ne rot na ci njàpp buy raxas ñaari loxom mooy gannaaw bu mu waxee bismillah mu ne alhamdulillahi ala al islaami wa nicmatihi alhamdulillahi alladi jaala almaa wal islaama nuura rabbi acuudu bika min hamazaati shayaatiin wa acuudu bika rabbi an yaxduruun allahumma uh, allahumma axfad yadaya min macaasika kulliha mooy mu wax gannaaw bu mu waxee bismillah ne yàlla ne maa ngi sant yàlla ci lislaam ak xéwal gim nekk di xéwal maa ngi sant yàlla wala maa ngi sant yàlla ci lislaam ak xéwalam maa ngi sant yàlla wala sant ñeel na yàlla mi nga xam ne moo def ndox muy laabalaakoon def lislaam muy leer yàlla sama borom maa ngi lay ñaan nga musal ma ci hamazat shayatin nga musal ma it ci ñu teewal ma yàlla yàlla na nga wattu sama ñaari loxo yi ba duñ la moy wattu leen ci moy yépp buy galax ndiku mu wax allahuma ainni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbale ma ci tudd la ak sant la ak rafetuk jaamu la buy sorox ndiku mu ne yàlla yàlla nag ma xeeñal raihatal jannati xeetuk xeeñuk aljanna buy raxas kanamam mu ne allahuma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh yow sama borom bés bi nga xam ne ay kanam dana ñu weex leer ay kanam ñu lëndëm yàlla nga boole ma ci kanam yooyu weex te leer sama kanam gi yàlla na nga ko boole ci kanam yay weex te leer yowmal qiyaamati buy raxas loxo ndey jooram mu ne allahuma aatini kitaabi bi yamini wa xaasibni xisaaban yasira yàlla sama téereb jëf yàlla na nga ma ko joxee sama ndey joor te nga xisaab ma xisaab gu yomb buy raxas càmmoña mu ne allahuma la tuctini kitaabi bi shimali wala min wara dahri yàlla yàlla bul ma joxe sama téere jëf sama ndey joor du caagen sama gannaaw buy masxa boppa mu ne allahuma xarrim sha'ri wa bashari ala nnar yàlla sama kanam yàlla sama karaw ak sama der bi yàlla na nga ko xaraamal safara wa adillani yowma eh, taxta arshika yowma laa dilla illa illa dilluk yàlla nga keral ma ci sa suufa arash bés ba nga xam ne genn ker gudu sa ker gi amut buy raxas buy masxa ñaari noppam mu ne allahumma jaal aha waaw buy masa boppam ci lay wax allahumma xarrim shaari wa bashari ala annaar wa adillani taxta arshika yowma la dilla illa dilluk buy masxa ñaari noppam mu ne allahumma jaalni min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana yàlla yàlla nag ma def ci ñi nga xam ne dinañ dégg wax ji te topp la ca gën a rafet buy raxas ñaari tànka mu ne allahuma habbit qadami ala sirati yawma tazallu fihi al aqdaam yàlla bés bi nga xam ne e, ndëgu yi muy tànk yi danañ tarxiis ca siraat dugg safara yàlla bu ci boole sama ndëguli yàlla nanga saxal sama ndëguli ci kaw siraat ba du tarxiis bu feexee maanaa bu paree ci njàpp la mu ne ashhadu an la ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa allahuma jcalni min altawaabina wa jcalni min almutatahirina subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mu ne buy wax lool nag na fekk ma nga jublu xibla yëgati ñaari loxoom ak kanamam jëm xasamaan gannaaw ga mu jàng suratul qadr ñaan gi nag lenn ci ñaan gi xanafiyatu yi dëppoon nañ ci ak shafiiyatu yi waaye defuñ ko sunna ñoom mustahab wala mandóob lañ ko def malikiyatu yi nag tudduñ ko ci suna yi tudduñ ko ci fadail yi bokk na ci suna yi e, njàpp inda shafiiya mooy listiyaaku soccu mooy setal e, bëñ yi e, bokk na ci suna yi ñuy tudd ci soccu it mooy ñaan gi allahuma bayyid bihi asnaani yàlla yàlla na nga weexale ci soccu bi samay bañ wa shudda bihi la haati sama dégg nga yàpp yi wër bañ muy siiñ nga dëgërale ko ci waaw wa thabbit bihi luhaati yàlla wa barik lii fiihi ya arhamar rahimin aha waaw mu ngoog bokk na ci sunna yi tamit eh, socc bi bu tilimee wala bu taqee nga raxas ko ñetti yoon wala bu xet ga soppee ko bëgguñ tamit socc ba ëpp chebre waaw shafiiyatu rahmatullahi alayhim bokk na ci sunnay njàpp inda eh, inda shafiiya mooy aji jàpp ji muy njëkkee toujours ci eh, kanamu cëri soog a wàcci su fekkee ne la muy jàppe maanaam mu ngi jàpp ci barab boo xam ne fa mooy tànk ndox ma ci boppam bokkul ak bu fekkee nag ndox mi dafay wàcc ci kawam wala keneen moo koy sottil mm-hmm. bokk na tamit ci sunnaay njàpp inda shafiiya mooy aji jàpp ji buy tànk ndox mi mu jëm ci kanamam pour raxas xar kanamam mu tànqee ndox mi ñaari tenxam yëpp ñaari loxom yëpp bëgg nañ tamit bum pes boppam ci ndox mi maanaam bu muy buy sëlmu bum taral loxom ci kaw eh, dégg nga kanamam mel ni kuy pes boppam noonu le bokk na ci sunna yi it xalil sikkim boo xam ne dafa bëri bokk na ci sunna yi tamit matale bopp bi sukoy koy masxa ndax masxa bopp yëpp du farata inda shafiiya ñoom lum ca masxa rek mu doy bu dee xanafiya nag rubu ba la mu doy bu dee malikiyatu yi ak xanabilatu yi fokk mu masa bopp bi yëpp comme shafiiya nag ñoom defuñ ne masa bopp bi yëpp farata la loo ca masaxa rek am nga farata masaxa ko lépp nag dañ ko def mu bokk ci sunna yi naka noonu tamit masaxa ñaari nopp yi biir géeg biti gi masaxee leen ndox mu xees bokk na ci ragg cër ya xam nga maalikiyatu yi ragg dañ ko boole ci farata yi bokk na ci it at tayaamunu fil wudu mooy njëkkee ndeyjoor ci dégg nga ci njàpp yi bokk na ci itaalatul xurrati wa taxjiil mooy guddal pell ak weex-weex loolu mooy lii nga xam ne yonentu wax na ne sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu xàmmee jullit yi ñoom dañoo bokk ci ñi nga xam dañoo def sunna ñu yokk ci li nga xam ne dañ ko war a raxas yokku ci tuuti ngir guddal pell waaw bokk na ci it ñetti ñettal wax ak jëfi njàpp lu dul baati yéene yi bokk na ci it méngale méngale xam nga ci maalikiyatu dañ ko boole ci farata yi waaw méngale dañ ko boole ci farata boo paree ci cër bi balaa moo euh, fendi nga dem ca ba ca des maanaam cëri farata yi muwalaatu waaw boo xasee tàmbali kanam nga rek dugg nga ci farataay muwalaatu Ah, ci malikiyatu yi bu dee ci eh, shafiiyatu nag laatu bu dee borom amut salas eh, du farata bu dee borom salas nag farata la bu dee borom amut salas sunna la salas mooy koo xam ne mënta téye saw wala mënta téye ngalaw ngalaw la kooku sala loolu dootut yàqati njàppam waaye mu eh, def muwalaatu méngale gaaw ci njàpp la dañ ko def farata inda shafiiya bokk na ci sunnay njàpp yi tamit assukuutu anil kalaami bi gayri zikrillahi illa li xaajatin mooy noppi euh, te doo euh, wax lu dul zikar yi nga xam ne mooy azkar yiñ tudd lu dul nag wax di euh, lu mënta ñàkk maanaam nga soxla ko bokk na ci ñàkk dimbanikoo keneen ci njàpp maanaam bu la keneen sottil wala bu la ca keneen defal dara bokk na ci sunna ya boo jàppee ba pare bul ko euh, bul fomp bul fomp bul fomp ak mouchoir bu ko bul tamit wiccax euh, bu ko dindi bul dindi ndox ma ñoom dañoo jàpp ne bàyyi ga ngay bàyyi ndoxum jàpp mi ci say cër yokku yiw la bokk na ci it sunna ya naan ca ndesitu njàpp ma waaw bokk na ci it jaaru boo xam ne yaatu na nga yëngal ko su fekkee ne dafa xat ba mën a tere ndox mi àgg ci cër nag yëngal ko dafay war moo xam jaaru ba bu dagan la walla bu daganut ñu dëppoo caag xanafi yetu wuute caag maliki yetu tabaarakallahu loolu ci gàttal mbokk yi mooy yiñ leen indil ci sunnaay njàpp inde assada hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim malaadu nnaas fi diinin wa dunya badulun duna manin binnawali shujaaun fi ixtiyaadin wa ixtinaamin ila alislaami ma tarkil muhaali jawaadun Alpha Institute Al Madina Travel Salum Jidda Sen Info International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo leen di may émission bu mag bi